ñaanal yàlla yàlla musal ko si seytaane musal ko si noonam yàlla nañu yàlla may ndam si kaw noon yi mais jigéen yóbbante bi kii gis nga yow man sama message yi ñoo bari ok loolu moo tax gis naa ko de waaw ñooy ay sëram ñun ñooy léppam. suñu borom dafa leer ne tey lii ñu ko teg moom dafa àttal ndax ñii ko ko teg tey ku ci nekk xam na ne ci ñun kenn ci ñoom àttal buñ ko ci tegoon kenn wàllu wax ko rek nga jégalu bu yàgg. kon président ñun sa ginnaaw tey ñu bokk ak yow lépp loo xamante ne ñu ngi la koy teg ñun jigéenu Pastef ñu ngi koy bokk ak yow di ko séddoo ak yow di wax ne ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ñoom seen mouvement bi loolu daf cee daf cee nekk donc dafay jaamu ak délégation bëree mm. ñaareel bi dañ fekk mois moo ñu defee jigéen ñi ñoom ñooy waxtaan ak seen waa kër loolu la Pastef ak fu waay mën a nekk aussi favori. kon ñun mouvement yi boo leen boo leen ba tënk tënkoo leen tënkoo leen kay daa metti